Assalamu alaikum boka yi magi maa Isa tudd si Bokarr Sy ñu doore jotaay bi tur yàlla bu tedd bu màgge bi bismillahi rahmaani rahim balaa ñuy dal di wéy ñu julli ci kaw yónnentam bu tedd bu bi mu suñ sàng mu di muhammadu sallallahu alaihi wasallam sallam li ma doon jàngat sànq si kàllaama ko nit dig daje ne jamono ji dangay bugg di gestu gis lu nekk ci biir ñëw di ko seddeeg ak seddoog askan bi li nga xam ni moom laa leen indil tey moo di njiiti NIA Yankuba Badji dal dina génn Gambia mu dem Mali mu ngi demee loparaan bi tudda SN Brussels ak gana Mali lu ko fa yóbbu mooy seeti sëriñ jëlee fa ay càngat ak yeneen indil ko yaa jàmme mu jëfandikoo ko ak ay soldaaram te itam Yankuba bokk na ci li nga xam ne la ko fa yóbbu moo di jëlee fa loo xam ne moo di poson lu ñuy mën a jëfandikoo pour rey nit am na tam réew bu nekk fii nga xam ne moo di Eastern yaa Yaya Jammeh jëlee na fa poison mu ngi ko yore Ben nabi sounkouf la, ben nabi loch la, ben nabi danykoy pengou. Am natan pouizin pou mdjele, ki ben nare ou bonen kamiloun ist. Ben nabi sounkouf la, ben nabi loch la, ben nabi pengou la. Lan la pouye jevane kou? Filak dina fi bantouat, neman wak loui nekal mit ene ou mafi, wak loui nganye mit ene ou mafi. Pe yakar la, xanaa ku te walla ku textelu waaye ku ne xam na ne mosuma fee wax nit ñi luñ gis li mu waxtaan ak ay ñoñam tey ca State House mooy ñenn nañu sax ñoo ko ci xaw a génne tey dafa buggoon a one hour ago dafa bëggoon a jóg dem jàppi coalition indi tëj leen mu ne ñooñu ñoo bëgg a indi fitna ci biir Gambia fii nag ku nekk ci coalition koo xam ne nag doyloo nga yow la ngay dégg ak la ngay gestu man nag dégg-dégg ŋàññu ma borom mun na am yaa nekk ci dégg waaye man li may gestu xam naa ku ko gëm baax na ku ko gëmul it baax na man waxal leen rek laa ci man loola su jàppee borom yi daf leen di tëj su demee ba nit yuuxu mu bàyyi leen waaye fekk na na fañ leen di tëj suñ ko tëjee am na sunguf boo nekk bu fay nekk soo ko soo ko noyee yow soo génnee dangay dund waaye dangay jékkee-jékki dee ngeen baal ma ka dama leen koy waxee na ma ko jotee te bu boobaa su fekkee ne loolu xewul nag ñu jàppaat boromin te fekk wóor na ko ne léegi dégg na ne am na ay takkader yu dugg ci réew mi pour xeex ak moom nee na dafay jël coalition ba rey leen ñoom ñépp moom it te xam na ne moom dafay dee ngeen baal ma te man nag lii laa leen di wax ku ko ci gëm baax na ku ko ci gëmut baax na man nag li ma leen di mooy ku ci jóg di ma ci tontu maanaam mel na ni man man may indi lii loo bu boobaa man am naa lu may jëf jëflanteeg borom yi manit ne man nekkuma fi pour caaxaan li ma fee wax adduna bi daf koy dégg te dañ koy gis saa nekk loolu su weesu mooy Yaya Jammeh ci boppam li nga xam ne moom lay waxal coalition bi nii ba léegi man damay wax fii ma ne ku gëm baax na ku gëmul baax na waaye li ma leen di xelal mooy nañ jéem a fexe ñu xam ni ñooy demee ci wàlli fa ñooy dem di fa fanaan suñ mënee dem ci embassy yi def ko wala ñoo xam ne ñooy jafe ne sécurité nag defe naa ne léeg-léeg am na ñoo xam ne dañooy ne duñ ko waxtaanee ci téléphone dégg la waaye ak sécurité am ne yaakaar naa loolu moom dégg-dégg gënuma cay ay adduna bi waaye xam naa ne man itam am na lu ma ca xam te ñu ngay wax ak yeneen i nit yu nekkul Gambien te nekk ay njiiti yeneen réew te ñooñu dañuy déglu kon bu boobaa loolu tam mu nga fa dafa am nag loo xam ne doo ko wax ci téléphone waaye am na leen loo xam ne man nga koy wax ci jaww ji te mu doon sécurité ba léegi métier bu ci ne nag ku la sa sut nde njool ma bu boobaa leneen li ci tegooti mooy kii nga xam ne mooy Adama Barrow moom aadama li ba koy yëgal mooy na fexe mu seet nu koy gën a aaree boppam ak jabaram ak ay njabootam su ko jaree sax mu dem Dakar mu am fa office am mu form government am mu announce ko mu dugaat ci biir Gambie ànd ak ñu ko fay teg su jaree